de Koungheul nekk fekk directeur de communication Alioune Dramé nekk Koungheul waa nekk conseil municipal encore fii ci Koungheul monsieur Dramé euh, coow li tey euh, ñëpp yëg nañu ko mooy tey li xew fii ci Koungheul ngeen tànn seen deux candidats yi war dem ci haut conseil bi mais dañu gis ne bi ñu démarré affaire bi am na problème yow mi xam ne tey mën nañu wax ne fasos fasos yi nekk parti bi moo la yor Koungheul ñor la problème bi am ban jàngat nga ci am. ban jàngat bi ci am dafa simple exactement parce que mhm. mu mel téléphoné responsable parti bi. dañ ne ma cas mu ngi mel ni actuellement ci Sénégal. Sénégal waaye bi nekkul Koungheul seulement. du Koungheul rek cas bi bëri na trop. Mhm. parce que politique moo mel noonu bu ñu tegee poste ñuy compétir dafay mbir mhm. seulement fii comme euh, man facilitateur la fédérateur c'est la raison pour laquelle ma proposé leen ne leen léegi nañ jël candidat mhm. candidat yi def liste mhm. def délégation au lieu que benn nit rek déposer bon on fait une délégation mhm. trois ou quatre personnes nga xam ne ils ont confiance en ces personnes là ñu dem déposer boo defee euh, parti bi ci ok c'est très difficile xam nga APR bu parti bu ah, donc vous fekkoon qu'on na un organe légitime

non non loolu moom baax loolu loo ci luñ ci mëna mën a man lu mu ci mun maa ngi koy def wax deug yalla ñom ñaan ñëpp gis na ñi gis na ñële ay suma rakk la voilà on peut même dire qu'on a créé le parti ensemble ici mhm. bo ñeneen ñi aussi ci may na tangolé mais ànd ñu bokk commune bi mais il faut que ñu am compréhension parce que boo ko gisee ci circulaire bi le président du parti le président Macky Sall a dit que nañ ko def dans un bon esprit bindu na ko noir et blanc ci la mo tax ma leen vraiment ni ci wuri instruction man ak man ci def la ok je crois que tôt ou tard on mais bala nga tay suba comme problème gëna moy problème mandataire maya jog laaj ci que ne ko ban ki mo ban document mo meuna wane na yow yàlla la mandataire. parce que am na par exemple Maya jàpp na Maya moo nekk mandataire ba léegi parce que amul dara lu ko notifié du moom. yow nga nekk fédérateur ba léegi ci ñaari problème bu nekk Koungheul di ci dox ba léegi kii mooy mandataire kii mooy mandataire APR est-ce que loolu am na njëriñ ci parti wala yéen loolu ngeen soxla. loolu amul njëriñ amul mhm. njëriñ. de toutes les façons parti bi dana décider. bon mën nañ éviter loolu daal. mën nañ ko éviter. sa kàddu gu mujj am naa yaa ngi nekk ci biir ma génn la waxtaan ak yow. <laughs> la ngay mujj wax waa Koungheul. man kay li may wax daal nañ ñun ñëpp nañ nekk ci gannaaw Macky Sall. ok nañ discipliné. Mhm. et puis gis nga politique man li may wax ci politique. c'est-à-dire mhm. politique dañ ci war a boole. Mhm. gëm yàlla. ok c'est très important. dañ ci war a gëm yàlla. man mandat électif man nga ñaaw ci xare bi te doo ko am. man nga toog fële yàlla indi la il est vrai que waaw looy def itam na nga ci xar sa tànk mhm. waaye mais na nga ko def mu rafet na nga ko def mu rafet te politique boo koy def c'est pour le bien de la population man daal bëgguma dagu fi Koungheul di rus. kon la muy kàddu suñu directeur de la communication monsieur Alioune Dramé bëggutu daagu dagu fi rus lan nga wax Koungheul Info suñu euh, liggéey. merci Koungheul Info mom suma affaire la. ok waaw. kon je suis membre. Uh-huh. de la rédaction. ah je suis très content de vous. Uh-huh. et en tant que directeur de la communication je vous apprends que. donner une petite subvention. on va vous apporter très bien. ok merci, merci mon directeur <laughs> merci mon directeur vraiment boo ko gisee dañuy kontaan di wax ak moom.